waa asalaamaaleykum mbokk internet di Diégo parle foot nuyu naa leen ziar leen ah, di wax ñi soog a bees seen bi day ñëw abonné ah, activer cloche de notification bi lu am solo la te dañ ci kontaan lool te ngeen aimé vidéo yi te di ko partagé ah, am na ci solo lool te ngeen ñëw ci commentaire yi di wax seen xalaat ak seen gis-gis waa gars yi tey day ñëw ci jour boo xamante ne gis nañ que ni. dafa intéressé sénégalais yu bari ñu ngi koy réclamer toujours ci commentaire dañuy gis li ngeen wax ci moom. muy Iliman Ndiaye mi nga xamante ne toujours dafay déclarer flamam di wax que ne ci équipe nationale bu Sénégal rek la bëgg a kon kooku noonu jàpp naa que ni Sénégal actuellement nii war na ko woo te mérité na place am ci équipe nationale bu Sénégal ak performance yu am solo yu muy def ca di côté de Sheffield United muy clubam. Euh, donc récemment rek ci gis nañ ci réseaux sociaux yi ak ci presse en ligne bi ñuy wax que ne Aliou Cissé dina ko woo ci liste bi nga xamante ni war na ko jénnee donc Euh, am nañ yaakaar que ne nag dina ko woo ndaxte euh, boo ko woowee tamit Iliman Ndiaye mérité na place am te et puis la boo xamante ne toujours mi ngi taxaw di déclarer flamam di wax que ni dafa bëgg a jouer ci équipe nationale bu Sénégal moom mi ngi wax que ni depuis bi mu nekkee xale bu ndaw a ndaw a ndaw la bëgg a jouer ci équipe nationale bu Sénégal nee na li mas a nekk objectif principal am mooy que mu gagné coupe du monde ak Sénégal. te loolu yaakaar naa mi ngi koy prouver chaque jour ñu ngi koy gis muy muy porter drapeau bu équipe nationale bu Sénégal donc muy wax que ne j'ai toujours aimé le Sénégal te nee na actuellement nii eh, dafa commencé liggéey bu baax a baax a baax ngir mu réaliser rêve am boobu ngir rêve boobu nekk li nga xamante moy réalité te yaakaar naa na ko ren ji ci saison bi gis nañ performance yu am solo yu muy def ci deuxième division bu Angleterre moy Sheffield United gis nañ ci fin de saison bi performance XXL x yi nga xamante def nako ci milieu de terrain bi Sofiane Diop nak muy muy jour normalement Sénégal daf ko parce que profil de boo wax Sénégal daf ko manqué muy meneur de jeu numéro 10 boo xamante ci attaquant bi lay taxaw te euh, vision de jeu mën naa les lignes. am na qualité de technique ballon au pied dribbleur macha allah kooku noonu Sénégal dafa war dem sax chercher ko du moom sax bu moo war a ñëw chercher Sénégal mais moom Sénégal ak Aliou Cissé ñoom ñoo war a dem jëli ko indi ko ci équipe nationale kon en tout cas mbokk yi loolu laa leen loon dina wax que ne dinañ ko woo bu neexee yàlla incha allah xam ban jamono doon te jàpp naa ke ne euh, suba te loo dinañ ko woo incha allah ci liste bi nga xamante ne Aliou Cissé war na koo jéenee ko lii la ñu ko ne loolu tamit ak si biir ko jaa ngeen jëf.